une, je ressens une joie que je ne peux pas décrire, parce qu'aucun mot ne peut décrire ce que nous ressentons. Euh, ce que tous les Sénégalais ressentent aujourd'hui, euh, c'est sublime, c'est extraordinaire. Mais je, je, je, crois, je crois au travail, je crois à l'abnégation, mais nous devons féliciter ceux qui nous ont aidés aujourd'hui à réaliser cette performance. C'est d'abord le peuple sénégalais dans son unité euh, qui s'est manifesté aujourd'hui, mais aussi surtout le président de la République dans les moments les plus difficiles où personne n'y croyait, il y a cru. il a mis les moyens, il a fait confiance aux hommes qui dirigent la fédération et qui, qui sont à la tête de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, c'est la récompense de son, de son soutien euh, de, total et entier. Maintenant, euh, on est au, sur le toit de l'Afrique, mais le plus important, c'est de pouvoir se maintenir au toit de l'Afrique. Et c'est là, là, où le travail va encore commencer. Je crois que vous ne pouvez pas décrire exactement tout ce que nous ressentons. Monsieur le ministre, enfin Sénégal remporté pour la première fois ndam li indi coupe bi Sénégal monsieur le ministre lan ngay yëg ci moment yi. sant yàlla rek di féliciter le peuple sénégalais di féliciter le président de la république fédération encadrement ak joueurs yi. ci seen liggéey liggéey bu rafet moo andi lii liggéey bu dëgg moom mu andi lii et le Sénégal le mérite donc dañu sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm it taskati xibaar yi nekk tàggat yaram parce que ñoom itamit ñu ngi def liggéey bu am solo ci suñu wet di ko def ci réew mi. monsieur le ministre ndax mbir mi dafa am mel na ni boobu ba ba nga ne yàlla ji ñun la ko dogal rek. ba nga ne yàlla ji ñun yow ñun la ko dogal rek nga xam ne. loolu la waaye li ko gën a lal mooy liggéey bu dëggu parce que 2015 premier tour lañ taxaw mais yàquñu li fi nekk dañu continuer di liggéey 2017 ñu def dem quart de finale yàquñu ñu continuer di liggéey 2019 ñu dem finale yàquñu ñu continuer di liggéey moo tax 2022 ñu jël coupe bi liggéey dafa am yoon moo tax fédération bi dañ leen war a sant sant Aliou Cissé sant joueurs yi sant état du Sénégal ci jàppale bi muy jàppale. sa coach Aliou Cissé yi malgré coow yi waaye taxul mu xaar. waaw la au niveau prof ko ba xam nga la au niveau day miin pression ñun ñii ci pression lañ dëkk guddee ak bëccëg loolu yàqalul ko war a liggéey dara pression bee critiques yi da ngay jël lii la ciy jëriñ rek nga jël ko lii la ci jëriñul nga teg ko fa tey ndam li am na ñëpp fàtte nañ wax ji. maa ngi ko nekk lan nga dig sa leen di dig nag mooy njiiti réew mi bu subaa ci 16h euh. lu nation bi war a def ci ñoom di ngeen ko xam bu soobee.